fii nga xam ni mooy ci Pikine ginnaaw raay kër famille ki nga xam ne mooy Aziz Dabala bi fi jugee ci anam boo xam ne ñu bari ci askan wi vraiment ñaawlu nañ ko tey nag yem ñetteeni fan di bis bi nga xamee ni ci lañ ko doon ñaan mu bokk ci ñi fi teew aussi kenn ci artistes yi gën a ràññeeku ci réew mi nekk xaritam bokk ci ñi nga xam ne aussi mujj nañu liggéey ak moom muy suñu dem euh, Demba Guissé xanaa rek dem Demba pour commencer Senbuzz Improd Dakar People dañuy commencer di la masawu di la jaale bu baax a baax ki nga xam ne moo fi jógee te mu nekkoon sa confrère nekkoon sa xarit nekkoon sa rak muy Aziz Abdoul Aziz Ba. waaw ñu leen di ñu leen di ñu ngi leen di ñu leen di nuyu ñu di siyaar baax a baax di seen liggéey aussi ah di leen gërëm yéen ñëpp di leen jaale aussi di leen jaal aussi. Hmm. lan nga ñu mën a wax ci jëmm ji nga xam ne moo fi jógee muy Abdoul Aziz Dabala ci koo xam ne yàgg nga liggéey ak moom mooy aussi mu nekk sa xarit ci ay waaw Aziz moom suma xarit la depuis Oscar de vacances donc di ko euh, bon di jaal d'abord ay mbokkam ci li nga xamante ni moom moo ñu moo ñu bett ñun ñëpp euh, mu doon suma xarit suma rakk aussi parce que Oscar la ñu bokkoon waaye xëy na maa ko jiitu woon tuuti ci ay ay at après yeneen année yi si topp la ñëw nekk meilleur danseur mm-hmm. donc euh, di ko jaalaat encore Sénégal yëpp quoi Mhm. boo nee Oscar ce qui veut dire que ni loolu époque bu yàgg la kon sa xamanteeg moom ak sa ànd ak moom yàgg na. effectivement bi ñu xamante yàgg na trop xëy na duñu euh, demlante mais mën naa ne chaque euh, vidéo ñuy def rek dañ koy mu accompagne jàppale ñu aussi ak xool bu rafet xool bu yaatu quoi donc euh, loolu daal xam naa ne seq nañ ko ci liggéey ba lu ñuy def daal suñ ko ci woowee rek mu ñëw def ko ak xool bu rafet quoi nit nit ku baax nag baax ci ñëpp aussi. Mhm. ci côté vie professionnelle lan moo doon renouveler de plus en plus sa confiance ci moom baloo xew la rek nga boole ko ci. waaw xam nga loo ko jox ci liggéey rek mu gàdd ko ak ak parce que moom loolu la mos a mel moo tax ñun ñëpp artistes yëpp dañu ko taamu euh, te àddina moom boo ci nekkee am noo mel rek nit ñëpp dañu lay dañu lay apprécier artistes yëpp boo xoolee relation bu rafet la am ci ñoom. te lu baax rek lay wax si ñoom donc buñ ko soxlaa rek mu jàppale leen si liggéey moo tax que ñëpp taamu ko donc si professionnalisme boobu muy def. Mhm. mu mel ni Sénégal yu bari am nañu choc mais rawatina yow mi nga xame ne aussi bokk nga ci ñi mujj liggéey ak moom euh, ban sentiment nga bi nga yëgee xibaar bu bett bi ak it anam bu ñaaw bi nga xam ne moom lañ ko fi moom lañ ko fàtte. waaye mbetteel rek comme nu mu bettee ñëpp parce que man bi ma gisee euh, institut bi ma maas moom moo dakaar Dakar Live moom wax ne yow est-ce que yëg nga lii mën a ko noonu. loolu nu mu demee noonu mu ne ma après ci laa woo yenn artistes yi les euh, Farsar euh, Farsar Grand Farsar euh, benn. ñu mhm. ma woo leen ku si nekk mais koo ci woo rek. day mel ni sax ñoom ñoom ko yëguñu ko woon parce que moment boobu man maa leen woo parce que ñi information bi bu génn rek laa woote. Mhm. mais ñi ma woo ñu ma laaj daal dañ na ma ne non après ma woowee nda yirim mhm. la ma ne effectivement mu ta doon wax sax bay jooy na ma ba continué wul sax ci laa wootee benn. Euh, benn femme euh, bu nekkoon télé Kumba Gawlo Seck bi. Mm-hmm. moo ma ne effectivement am na parce que magam bi nekkoon si club Kumba Gawlo mm-hmm. mooy ki ñuy wane euh, kii Modou Ba moo ko confirmé loolu la wax après ma ne ko hee kon musiba am na. ci laa gis nag ñoom ndéygee ñëpp ku nekk di ko wax. Mm-hmm. mais vraiment daal mu doon lu bett lool waaye nag lu metti aussi. ok ndax lu jiitu nga yëg xibaar bu bett boobu gëj ngeen a gisee yéen ñaar. waaw man Aziz gëjoon naa gis depuis jour clip bi. Euh, clip bi je pense que ñu ngi ko tourné woon boobu ak léegi waroon def normalement quatre semaines waaw presque un mois quoi. boobu laa ko gëj gis mais après clip bi vocal na ma naan mooy Demba Guissé yow yow clip bi euh, fu clip bi toll. fekk maa ngi ko envoyé ay ay gars yu fecc si fële si si village yi Oscar de vacances. Mhm. ma envoyé ko muy ree nan ma dem ba gis waaw dama wax fu clip bi toll ma ne ko après clip bi rek bu ñu euh, màggalee ba pare li clip bi di génn mm-hmm. incha allah rabbi mm-hmm. far yàlla dogal ndekete du ko fekkee. Mm-hmm. anam ñu la wax ni moom lañ ko reyee nga xam Aziz xam ko ci jàmbaarte ci bëgg liggéey mais aussi ci nit koo xam ni ku ku ku bëgg nit la ndax lu la bett la ci anam boobu ñu reyee ko ki nga xam ne mooy Aziz ci nit koo xam ni xëy na ñëpp jàmm la se ak ñoom. non lii ni ma bette sax dafa ëpp am na ñu ma sama xarit yi may gis fan yëpp dañ ma ne yow de dafa mel ni yow yaa ngi soog a am euh, a dese. Mm-hmm. dañ ma naan yow de ok tout le temps dañ ma koy wax rek dañuy gis tout le nekk ci image mm-hmm. di ko partager tout ça di ko di ko statut ñu ne ma yow de sa dafa mel ne daf la affaire la daf la affecté trop quoi. e nit nag nit kese la nit nit kese lañu yii man maa ngi koy soog a gis surtout nag nga rey koo xamante ni vraiment. xam nga doomu aadama sax waxuma sax artiste beeg yooyu mais doomu aadama moo diis. donc boo ko faatee faat keneen encore mu nekk double loolu loolu loolu loolu loolu. loolu vraiment dafa metti dafa metti trop trop trop. donc ni ma bettee daal moo tax mu affecté ma ba ah, ah, ba après doo doo sax nelawaan ah, man jour bi ma ko yëgee. nelaw ma ba 6 heures du ma nekk si téléphone bi nekk ci euh, xam nga après ku ne nga di ko woo di ko mastaw ñi di la woo di la man ku ne woo na ma te ndeysaan dafa doy waar daal fii ku mu jàppul rek xanaa xanaa xëy na doo nit quoi. rawatina yéen ñi nga xam ne ni yéenay liggéey ak moom wala yow mi nga xam ne bokk nga si ñu mujj liggéey ak ñoom. effectivement li ma mujj liggéey ak moom génnagul. xam li ci gën a daw yaram mooy même xale bi Fatou aussi mu ngi ci clip bi. waaw ah ah muy Waly Balde bi nga xam ne moo daan ànd ak moom. Waly Balde mu ngi ci clip bi euh, parce que Aziz moo ma ne ba Guissé comme morceau bi en la. booy bi il faut ko ci quoi moo xool booy bi mu ngi sëqal karaw gi noonu ko yow yow de booy sama mbokk pël nga ñëwal mu ñëw ñu jox mm-hmm. euh, benn bant mu takk kii jox ko tengaade mu sol tout ça mu ne ma mais grand mais clip bi moom bu yeboon na ma gars yi génnee ba ma nice ba ma mën ko am benn problème waaw waaw ndekete yoo yàlla def nekk clip bu génnee du ko fekkee mhm. Aziz du ko fekkee mhm. loolu moom ma gën a marqué trop ci ci ci affaire bi aussi mhm. mel ni dina nekk choc vraiment psychologique ci yow mi nga xam ni mujj nga liggéey ak moom sa xel ci lan la dem biñ la annoncé décès bi wax boo xam ne xëy na moom nga mujjee wax ak Aziz wala lu la gën a marqué ci li nga xam ne xëy na subitement bi la ko tàggee rek sa xel ci loolu la dem non Aziz dama ko doon wax ne dama ko doon euh, euh, li ma si gën a marqué mooy dama ko doon euh, tooñ keroog. ndeysaan ci kaf nii rek. naan ko ah waajalal de non jógal sa bopp de ah naan ko ah temps yi clip yoog la ñuy woore jógal sa bopp de gaa ngi ci kaw di ko mbalak nii quoi te xaw ma woon sax vraiment di ko tooñ noonu yaay dégg. après bu ñu tourné sama clip bu mag ba pare sàmba ci lañu ànd si oto bi mooy image bi gars yi di gis noonu mu euh, ma nekk si ak moom ci oto bi mm-hmm. boobu ba pare boobu def na presque ay 3 mois yooyu ah wala lu ko ëpp même mm-hmm. ñu ànd nag may mooy may woy euh, ma tegal leen sama morceau bi may woy moytu rek mm-hmm. euh, am na ñoo xam ne duñu kontaan loo am duñ la ko yéenee musiba rek lañ lay ñaanal donc ba ma ci wax ne que nañu moytu rek quoi et tout ça moo tax sax xëy na vidéo boobu viral parce que parole yi dafa ndur trop ak li nga xam moo jot a xew et tout ça. Mm-hmm. en tout cas métti na torop torop mm-hmm. torop torop vraiment. d'accord alors euh, ban état nga xëyee tey bi nga xëyee ñu ne non seulement ki ko rey jàpp nañ ko mu nekk xale bu ndaw boo xam ni 24 ans en tout ci li nga xam ne moom la jot amagum ci information moom la am mais aussi li tax mu rey ko histoire u xaalis yu ñàkk fayta yu banaal yooyu ban état d'esprit nga dundee nga dundee information boobu. nii laa ko gisee léegi rek waaye man xam nga yu mel nii dama ci tey daf ci ndànk parce que mel nii ku ne day di wax. Mm. Eh, yoon moo yor dossier yi mhm. lu ci nit wax day waxee xelam rek mhm. ñu ngi si boole di lim ak mbir ñu ngi tooñ doomu jàmbur yi nañu bàyyi di siite mbaa di tegtal eh, lii bu nekkee ci loxo yoon nañ ko bàyyi loxoy yoon mhm. te bañ a tuumaal ay gor di woo ay nit di leen ci yaakaar ay kii bi muy wax ak xoola bët yeeg kii wóoluma ko kii loolu baaxul xam nga yow nañu nañu nañu ku ne rek na ko xool sa bopp te accusation dafa metti ak ku mu mën nekk mm-hmm. man xaw ma ki def xaw ma ko deful mais nañu bàyyi di tuumaal directement xool nit rek mu set wécc nga ne ko génnoo ci mbaa bët ni ngay xooleek wala lu tax jooyoo mm-hmm. nañu bàyyi yooyu justement surtout loolu loolu choc ñu bari démb ay nit toog via wala yenn réseau yi di cité ay nit loolu nañu moytu loolu nañu moytu ku ne nag nañ xool si boppam accusation dafa metti waaw wala yaakaar naa wala xool naa la sa bët beek jooyoo ak wala gisuñu la ci kii beeg yooyu ay wax nanu ba lépp ci loxo yoon mu def ko ndax yoon moo yor affaire ci loxoom mm-hmm. nit nag boo nekkul yoon te gis nga ñuy àtte dépendre luñ ci benn live wala benn affaire xooluñ sax yooyu. ndax kay ñoom wóolu nañu seen seen seen seen seen seen i enquête nañ bàyyi ñu def seen enquête luñ ñu ci gis rek ñi xam ne lool la. loolu moo gën a rafet ak àddina amul solo. Mm-hmm. Mm-hmm. ban sentiment nga am bi nga ñëwee ba gis waajuram bu jigéen gis famille xam aussi taxawaay bi nga xamee ne Aziz amoon na ko ci ñoom tey ñu rey ko ci anam. xam ne am ñaan am ñaanu waajur sa yaay di la di la di la ñaanal tout le temps sa yaay di la waxal yu sa yaay nee na euh, saa boo xëyee rek mm-hmm. yaa ngi koy dégg yaa ngi koy nemmee ko li ma dawloo sama yaram bokk fu mu naan li ko naqar rek ba mu jooy bokk na ci moom Aziz ni amagul ay millions ba teral yaayam. yaa ngi dégg xëy na amoon na yéene boobu amoon na euh, yéenewu tey dimbali yaay ji et tout boo ko gisee si bàmmeel bi mu dem di defar bàmmeelu papa ji. Euh, di ko di ko di ko di ko nettoyé di ko defaraat ba mu baax. ba naan tôt ou tard rek bientôt rek ma fekk si ko. kon xam nga ne kooku. am na fu mu tegoon ay euh, waajuram boobu aussi am na aussi lu mu bàyyi xel ne que suñu borom moo fi yaa ngi dégg. Mm-hmm. leneen li ma mën a seede kay bokk ci tey dañu tourne clip ba yàgg mu ba lépp ne sama gaay julli ba pare soo ko continuer liggéey bi ok. Ah donc te loolu dafa nekk ay ay ay ay affaires yu yu yu marqué doomu aadama. qualité hmm? yooyu yow ngeen waxtu julli jot. Ah, mu arrêté lépp bi ma di ak moom tournel na ma clip yu bari. Mhm. mais bu ñu tourné ba yàgg da nga gis Aziz bàyyi tournage ba malgré mu ngi si métier am bàyyi tournage bi dem julli ji ba pare continué waat à tournage e nit nag bu nekkee doomu jullit. Mhm. nañu bàyyi di juger la personne ci apparence am. est très important. ok donc tey boo xoolee la majeure partie ci ay famille ay ibaadu lañu. donc tey bu ñu dugg trop ci. ci ci détail yooyu bu ñu jugé nit la personne ci apparence am wala métier hmm. nañ ko ñaanal yàlla xare ko àjjana donc loolu moo gën a rafet hmm. ndax ay ñëpp ay doomu aadama lañu ay hmm. ñun ñëpp ay dem donc loolu rek laa am xam mënoon naa ko ci wax quoi ñan ngay wax ñenn ñi nga xamee ni ñi ngi doon accusé ñenn ci ay proche am wala ay nit ñoo xam ne xëy na ci vie professionnelle aussi dañ daan fréquenté ñi doon def loolu lan nga leen di wax ah man de ñooñu mënu ma wax ci ñoom lenn li ma mën a wax daal mooy nañu moytu tooñ baaxul waaw ah, tooñ baaxul. Mm-hmm. Hmm. tooñ baaxul. en tant que porteur de voix boo amee dernier kàddu booy jëmale ci jeunesse bi ñoom ñi nga xam ne souvent ñooy nekk victime ñoom la ñu rey mais aussi la plupart aussi ñoom ñooy reyaatee ci ay affaires yu banal lan jàpp ni moo manqué mais aussi yan kàddu yu conseil moom ngay jëmale ci jeunesse bi pour yu mel nii ñu ko moytu. ah jeunesse bi xam nga ñun xamuñu ko xam nga li may faral wax lii yi daañu ko gis si réew mi fii. Hmm. ñu ko doon dégg si yeneen di dëkk bu demee ba yi am nañu xoolaat rek xoolaat jikko yi c' est très important parce que euh, parent yaraat xale yi mhm. euh, euh, état bi dimbali jeunes yi ñu mën a liggéey jàpp ci dara. Mhm. ok aussi ñuy xool fréquentation yu baax yi jéem ci roy ama te moytu gàtt tànk aussi xam fooy taxaw ndax àdduna bi dafa jaxasoo léegi. Mhm. ku yebu rek nga euh, wàññi fréquentation ak wàññi fooy dem rek nit ñi xam ne foofu la et tout ça donc xëy na lii yóbbu Aziz tey bokk na ci xëy na ñu bari xam nañu fii la dëkkoon yooyu c'est dangereux ci artiste donc na ko nañ ko bàyyi xel ñu ni nga xam ne aussi ñu ñoo nekk di limité di xool ña ngay àndal et tout ça mm-hmm. dëkk dañoo nekk ci dëkku moytu ku ne na moytu waaw ñu naan personne n'est à l'abri mm-hmm. toog sa biir kër ñu fat la bàyyee bàyyi euh, bàyyiwuñu léegi ñu ne ci mbedd bi ñu hmm. faat leen. Hmm. kuy dox ñu faat ko léegi nag jar naa ragal. nañu moytu taal. Hmm. sama jigéenu bopp pend mu Serigne Babacar baax bi yëf yi yàlla ku dégg muy wax di nga xam ne am na métit ak mbetteel. gis nañu aussi taxawaay bi nga xam am na ko lépp lu dal ci wax dëgg yàlla daf koy def combat boppam maa ngi ko koy jaale aussi pend mu Serigne Babacar jamono ji mi ngi fële ci Touba pendoo gisee di la may occasion aussi nga jaale ko ko ak sa xarit mbokk artiste yi. pendoo de mu ngi jooy rek boobu ba parce que moom noonu la ko ndax Aziz xaritam la woon kilima mi muy def yëpp Aziz lay woo mu jàppale ko ci aussi. donc nit nag bu bu génnee àddina. mu nekk xarit ou mu bañ xarit na nekk jullit rek. du ko bu ko nekkee rek war na laa mën a métti rawatina nag koo xam ne da di liggéey di déggante et tout ça. Mm-hmm, mm-hmm. donc Penda moom xaritam la woon lu mu ci wax rek gisoo moom mënu sax wax mu ngi doon jooy rek à tout moment dafa xaw a trop surtout daal koo xam ne jot ngeen a ànd ci liggéey nga mm-hmm. euh, <laughs> ko sérieux ko. ki ko rey nii xam naa ni bu toogee dina ni ndeysaan def naa lu ma xamul donc moo tax yàlla na yàlla euh, dolli jàmm ak sutura quoi donc aussi moom mi euh, faatu ak waali mi faatu aussi ay mbokkam ñoom it ñu ngi leen di jàll parce que dafa metti donc na ñëpp am jàmm daal. Mhm, mhm, mhm. ñu ngi lay encouragé waat di la. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf kontaan nañu jërë ngeen xew jërëjëf.